ku ci julli juróom-ñetti rakaa rakaa bu ne fatiha benn yoon isaa jaa juróom-ñaari yoon ñu baamtuwaat ko juróom-ñetti rakaa lay doon rakaa bu ci nekk fatiha benn yoon isaa jaa juróom-ñaari yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa